moo tax nag dafa am ay image yu doy waar yoo ah. xam ne surprise lañ la ko defal ah nañu seetaan image yi <laughs> ñu seetaan ko dellu si

jaayi kenn amul ngi reede gars yi <laughs> lii image yu démb la woon est-ce que tu te souviens de lii kañ la woon image yu doy waar la lu wane ne que euh, gaañ yi évolué nañu bu baax ci wàllu solin ak ci pecc <laughs> ak ci njañ. Youssou boppam lay waxala ah? tàccu leen <laughs> mais xoolal rek euh, kii ah. euh, mbay jeeg ak afro bi. <laughs> kii bi ah, du afro kii la wal kër li gis nga est-ce que gis na kaala gi ma. tegoo tegoo ci kaw. yëre tubaab bi. ak dem yu métti yi fecc bu métti bi muy wone rek ne démb am na solo lool. solo xale bii fecc na xàmmee nga ko. mais ça c'est extraordinaire. Mhm. bon léegi naa laa xool nii ma xoolaat ko bu baax maa ngi tooñ salaam di ko wax ne moom la mais je crois que Abdoula. Abdoul tu as vu juste dañuy dem seeti sa benn xarit mu am témoignage bu mu def ci yow. Mhm. moom dinañu éclairer ci image yi tàccu leen. incroyable. ces images ont été tournées il a plus de vingt ans je me rappelle. quand j'avais une euh, petite caméra A8, j'étais en train de filmer sur scène, Youssou Ndour m'avait posé la question, qu'est-ce que tu veux faire avec ces images Je lui ai dit que peut-être dans quelques années, tu sauras que ces images-là vont nous rendre énormément service. Il m'a dit, ah bon. Donc j'ai gardé cette cassette par devers moi. Et aujourd'hui, la situation est là. il vient en studio, il je lui sors des images, donc il y a plus de 20 ans. Ce garçon qui est en train de danser en pull jaune, c'est Abdul, c'est mon fils. j'apprécie du groupe Super et de Youssou c'est surtout la fidélité, la sympathie des artistes, des musiciens qui sont autour de lui. Ils sont toujours restés fidèles donc au Super Étoile. Lorsque je vois aujourd'hui Papomar, je revois Jimmy je vois Mbaye Faye, je vois euh, Habib Faye, Euh, je suis très fier de les voir ensemble sur scène parce que c'était la philosophie d'un groupe responsable. Et je pense que c'est des choses à apprécier. Le morceau donc de, du Sundour euh, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup et que j'aime le mieux, c'est Immigré. Parce que quand j'étais à la Chaux Fonds en Suisse, c'est le morceau que j'écoutais euh, que j'écoute euh, beaucoup. Je sais que Tchapatiouli a beaucoup marché avec euh, Euh, Mas Diokhane, donc Touba Autocassette, c'est là où j'ai connu Youssou Ndour. Et j'entretiens de très bons rapports avec tous les artistes sénégalais. Je crois que euh, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, notre lutte, notre combat, aujourd'hui, c'est la défense pour la musique et pour la culture. Donc, à travers, euh, donc, euh, par ce biais, euh, je salue au passage tout le monde. Et je suis très heureux aujourd'hui que Youssou Ndour soit dans les studios encore une fois. Et chaque fois qu'on l'a appelé, il, est, il, a été toujours, il a répondu présent. Donc, euh, je lui souhaite une bonne chance et bonne réussite. mu nekkoon témoignage yu El Hadj yéen ñaar yaakaar naa ne vous des points en commun mm. ndax li ngeen def ci musique ak culture sénégalaise bariwul ñoo xam ne def nañ ko ma bàyyi la nga apprécier témoignage bi. jërëjëf euh, ba ça m'a beaucoup touché <clears throat> ndax Abdoul papaam la bon ñu bare dañuy gis 2S euh, wala dégg El Hadj Ndiaye ak vraiment tout le mérite bi nga xam ne daf ko am ñuy commenter si diggante El Hadj Ndiaye ak Youssou Ndour diggante boobu dafa yàgg El Hadj comme il l'a dit tout à l'heure El yàlla moo ko baaxee mu am relation ak tous les artistes de la même de la musique ku ci nekk bu taxawoon fii di wax digganteem ak moom dafay original man nag sama bos laay wax El yàlla daf ñu boole dëkk nañu ensemble El Hadj forcé naa ko guddi ñuy enregistré ma dem France gis benn machine taxawu ko ma gis muy téléphone moment boobu xaalis bi sax du mat pour le lendemain appareil boobu fekk ma fa studio 2000 bu usine bi ubbee man ak sama waa kër ñoo fa njëkk a dupliquer cassette 7 yéen koy fàttaliku El fonk naa ko suma xarit la yàgg nañu ñoo bokk même combat bu ñuy def pour la culture mais aussi am naa trop respect ak sympathie ak vraiment gis-gis bu positif ci ki nga xam ne mooy soxnaam ndax bon xëy na léegi kilifa gu kilifa gu teey la élage ak euh, toutes les choses yi nga xam ne que responsabilité bu mu yore et mais il était turbulent <laughs> et boo xam ne que bon vous discutez il aime bien les échanges vous discutez il n'est pas d'accord il te dit ce qu'il pense et chaque fois suñu daan waxtaan ba dara ba ma mer wala dara su ma tourné dem si Mariam waxtaan ak moom ne ko sa waay dafay déconner par rapport à telle ou telle chose su ma Mariam waxee damay comprendre et je suis sûr que je suis pas le seul aujourd'hui la situation a vraiment évolué te boo gisee euh, nit boo xam ne que yàlla mi ngi koy dimbale di ko jàppale muy avancé boo gestoo war nga gis soxna su baax su nekk ci wetam. tàccu leen loolu waaye. donc El Ndiaye ak 2STV yi El Hadj su ma bu ma doon wax ci ay waxam émission bi yëpp ci lay ci lay yem. Mhm. El Hadj c'est mon ami. mësuñu am problème il m'a beaucoup aidé man j'ai en tout cas beaucoup aussi contribuer ci li nga xam ne que moom la vision moom la musa am donc mënul am problème. mësu koo am te du ko am ba faw te yàlla bu mu ko am waaw tàccu leen loolu <laughs>